Ah, ñu leen di nuyu ñoom Albert Ndong ñoom ñëpp de la part de Diegane Ndondon nee na ñooñu mooy délégation mouvement libéré Karim Amina Touré Esaba maman Mousli Diop ñoom ñëpp ñu nga ca Fass di leen nuyu bu baax di nuyu tamit Fatma Ndiouk actuellement ma nga ca Mauritanie ziar nañ ko di ko may morse bi nga xam ne morse mbëggeel ki ko ko may nag nee na mu ngi koy bëggee bu baax moom Fatima Ndiouk euh, nekk ca Thiès nee na nag euh, bëgg na trop ci moom. léegi dañuy seeti pénitentiaire ak Karim Wade pénitentiaire. pénitentiaire. na def. maa ngi fi sabar tey dama sañse. yow kay danga sañse sa grand bu rëy bii foo ko jëlee. Serigne Gaydel moo fiy ñëw. Gaydel. Serigne Gaydel benn bi nekk Thiès. Ah. mu may seet si tey. xanaa moo lay wax nga sol li déedéet am na ay yére xame wo bi bii kay maa ngi koy doog a gis. bi bi. te yére bu yi ñoo ma ko may. Ah, moo taxit triste la yi ñoo ma ko may. sinon yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla tey Serigne yi lay dalal tey. Mm. seex ñu mag yëpp tey tey ñu maa leen di dalal tey. ndeysaan. ndeysaan noonu la dalal leen bu ko defee sax ñu defal la tuuti. ah ñu defal la bu ñu ñëwee. oui pénitencier. affaire yi temps yi temps yi ralentir na de. lan noonu déggoo ñu wax suma affaire jugement wax dara. man kay dégguma xam nga man. fii mooy senn fii pénitencier. am na jinax buy jógee fii mais jinax bi buy bu jógee fii affaire am leexul. léegi jinax bi lu muy def si fii. Karim Cook Karim Cook Karim Cook rek Karim Cook Karim Cook Karim Cook rek ngay dégg. jinax buy wax buy wax Cook mais Karim Cook Karim Cook. xanaa Cook dañ ko fi yebal. la moo yebal. dañ ko yónni fii ci yow. yónni ah, mu ne am mu nekk yónni. Hmm, pénitencier parce que man mosuma gis jinax buy wax ba mu juddoo ba léegi. pénitencier. Hmm? maa ngi suba lay wàcce kamin bi fii mokkal na kamin bi léegi. mokkal nga bu baax léegi. yow fan ngay commencé. ah mais fi ñëpp di commencé. fi ñëpp di commencé. parce que Karim dafa am fooy commencé ak fooy jeexalee. mais yow bu fàttalee man Karim Wade laa tudd. Karim Meïssa Wade. Karim Meïssa Wade laa tudd. Meïssa Bigué Kumba Wade. Birame Ndiémé Kumba Wade. Sango Mbéti ah, ah, Wade. Ah, Fara Wade Ndiaye. Daro Wade Ndiaye. Sango Mbéti. yow sa tagg sax mënoo ko yokku mi ci songum xeer loolu mënoo ko. yokku yow laa koy laaj yow mi koy dàqantalee. yokku ma nekk ci yàq. ah kon yéen seen tagg bi loolu la am yëpp yàq. yokku ma ci songu. xeex ay xeex. Mhm. kon ñun ci famille xeex lañ bokk. ah loolu de xaw ma. pénitentiaire xeex mooy kayu. Euh, pénitentiaire. Mhm. c'est Valentin bi léegi mu ñëw di. Ah, benn fan suba ci des incha allah suba moo des jeudi vendredi. man xam naa jour boobu sax du ma liggéey. ah da nga am Valentin. waaw ah, damay dem Valentin wu ji. Oh. Mhm. man naa ngi fii rek sa ñu empoisonné ma tëj ma tëjaale sama xol. kan mooy sa xol. sama xol baa ngi nii li wax a bëgg kay buñ ko tëjee nu may gisee pour bëgg ki muy gis jàkkaarloo la mën a wax li mu bëgg. mais wax ma ko ma lijjanti. man kay xam naa ne su may bëggante. Hmm. pénitentiaire laay bëggante parce que ñoom lay gis guddi ak bëccëg ñoom lay gardé. wax naa la beneen pénitentiaire bi nga bëgg pénitentiaire bu tëjee sa xol moo koy ibbi. léegi da xam nga nan ngay def. am na pénitentiaire bu tudd Mami Diatta bëgganteel ak moom moo gën. yow xanaa da nga bëgg Diatta Diatta yi xëy ma <laughs> Mami Diatta tamit yoo xamu fii. waaw eh, kooku dafa sew tuuti. kon yow xool nga ko foofu ba xam ndax dafa sew dafa tuuti daxa tamit politicien bi nit la. quand même damay am ay bëgg-bëgg àdduna. Hmm. pénitentiaire man su ma nekkoon tey euh, euh, xam ne ci mbedd bi la. Hmm. dinaa la defal taalif bu neex. taalif oui. acca commencé ma dégg. ma ne. sama xol bi ñu tëj te nga yox caabi bi soo ko ibbiwul keneen du ko ibbi te caabi mooy tijji mooy tëj ki tëj bu la ibbiwul ku lay tijji ibbil sama xol te tëj ko te jaale sa bopp ci biir def ko mandat dépôt au bénéfice di doute déedéet yóbbu ma cour d'assises de l'amour yóbbu ma cour de cassation cassé sama amour yóbbu ko ci cassation yi gën a mag yóbbu ma procès verbal entre moi dans l'univers de l'amour pénitentiaire hasta luego.